bokk na sa fa nga xam ne it mooy zaanu Kolda nag fa daal di di ki nga xam ne que moo di Aliou Bodian Aliou Bodian nag amal neen li nga xam ne que moo di yenn rapport si moom xool exactement na si yenn circonstance daal di génne àddina jàppale ni itam ki nga xam ne que moo di Aliou Bodian il est victime d'une mort violente par traumatisme abdominal en rapport avec l'impact d'un projectile d'arme à feu ma ni kon benn arme à feu nag la ko daal di li nga xam ne que moo di tiré moom moo daal di li nga xam ne que moo di yëngal abdomen bi moom wala mu daal di génn à waaye jàppale ni tam batay enquête bi euh, mi ngi sur li nga xam que son cours euh, peut-être daal xam exactement ana euh, arme boobu fan la daal di jógee waaye kan moko daal di exactement li nga xam ne que moo rapport balistique bi donc def na li nga xam que moo rapport yeeg yep alors il est victime justement bien violente par traumatisme abdominal en rapport avec l'impact d'un projectile euh, d'arme à feu alors euh, arme à feu d'armes moo ko madame, à faat maanaam ab li exactement alors euh, le mooy qui se bi si wàllu mel est-ce que jàpp une enquête pour déterminer exactement kan moo ko daal di peut-être nous nous wax ay aussi des infiltrés par rapport à que nga xam manifestation ni wax li madame, la est devenue de plus en plus chaotique. Voilà, euh, ñu ngi profité de cette occasion di jaale. Mm. waa famiyam mm. euh, moom Aliou Bodian. et aussi euh, di ko ñaanal fu mu jëm gënal ko fu mu mm. le cas de Aliou Bodian c'est la première fois au moins que le ministre de l'intérieur accepte ni que bal moo ko rey. dañu c'est-à-dire que ci biir bi lañ tiiree bal maintenant on attend à ce que enquête mu jub ci Aliou Bodian. Parce que euh, chaque, depuis 2021, mm. les Sénégalais courent devant ces enquêtes. Chaque fois, le président de la République et les ministres de l'Intérieur, ont euh, une enquête pour savoir nous lan mais si léegi enquête une faut la nek, Sénégalais la sénégalais xamuñu. Mm. ça c'est l'occasion pour le cas d'Aliou Aliou Franchement, franchement ñu les sénégalais à travers une enquête qui xamante euh, bu clair pour ñu xamal ni sénégalais lii nii nii bal bi calibre bii moo ko rey te calibre bi waa koor bii nii ñoo yor wala leneen ak leneen man waxuma ni ay waxuma ni ay gendarme parce que man du ci xamul est-ce que est-ce que dama ne enquête il faut que l'État du Sénégal amène des enquêtes ne euh, pour ñu xamal sénégalais ñii ñi ay yan ñan ci yan anam lañuy ñuy hmm. ak lan mo leen ray dafa jaadu parce que euh, si on le fait pas aujourd'hui on le fera après peut-être demain nguur gi bu wàccee ben nguur bu bu ñu japp ni le dossier là sera classé sans suite non non non négatif on parle des des des trentaines de morts une Fallou dossier bu melni kenn du ko encore kenn du ko encore une fois ci tiroir il faut que les auteurs sachent que ni li bu nekku leen ren tey avec cette magistrature du président de la République Macky Sall dina sous une autre magistrature d'un autre président qui va venir dossier bi ken du classer sans suite hmm. donc il est temps pour nous, ñu leeral la lanterne des Sénégalais lan mo ray ni Nous lañuy waxé waxee ñun ñun tuumaluñu kenn waxuñu kii moo ko rey wala ñu ni kii contrairement ak ñii lay ñi ñun du ñu taxaw ci côté opposition di ne non déedéet wala taxaw ci côté pouvoir di ne déedéet ñun enquête lañu soxla il faut que état du Sénégal mën na ko mën na ko def. mon problème en est que. foog mu def loolu mon problème en est que. Mhm. Euh, arme à feu bi ko faat. Mhm. du arme à feu boo xam ni yow da nga koy doxantoo man tamit dama koy doxantoo. exactement parce que arme boo xam ni. Euh, mhm. arme bien définie. kan moo ko war a mën a détenir. pour daal di koy li nga xam ne moo di tirer. exactement yow yaa ngi nii wax lu am importance. tu sais pourquoi moo tax bugguma dugg ci domaine boobu. l'enquête sera beaucoup euh, enquête bi suñ ko. voilà suñ ko approfondir. exactement moo tax ma ne la lu bëri dina feeñ. merci moo tax ma ne la. Eh, xam nga doo wàcc li nga xamul arme encore une fois calibre bu rey euh, hmm. Aliou hmm. eh, ni ne voilà nii ak nii loolu hmm. par parloo te par parloo baaxul moo tax ñu que enquête nakul dese boobu kese moo am ci wala ci boobu caravane de la maintenant ci calibre enquête ban bal moo ko rey ak kan moo yor arme boobu kan moo am sañ-sañ yor gànnaay boobu loolu lu foofu la ñuy waxee. mais si toutefois c'est des infiltrés c'est-à-dire. ma su nekkee si corps euh, su nekkee si corps police sax. dama ne euh, dinañ ko euh, dé ko dinañ ko ñu ngi nii di wax si toutefois si mu nekk si corps police dinañ ko war a mën a déterminer mais benn fàll bu ñu yor armam. Ah. Euh, tirer def lu euh, def dem yonam mais kan moy xamni ki kii yor arme bi. xamal lu ñu su nekkee entre eux sax war nañu ko mën déterminer que ni ki moo yor arme bi comme Bassirou Faye. Mhm. de son cas à l'université Cheikh Anta Diop bu Dakar exactement. Mhm. Euh, ba rapport balistique bi génnee jàpp nañu kii moo yoroon li nga xamné que modi bal bi ki lañ ko joxoon mais benn faal bu jogé feur ñëw tirer demaat yonam nekk un infiltré nekk supposé terroriste donc koko fan lay jàpp pour woon ko déterminer exactement. exactement xam yo yaay ni di wa infiltré ñoom waxuñu infiltré de. parce que si si ay forces occultes. waaw si si moy euh, moy des. infiltrés d'accord c'est-à-dire ñu ah, des forces occultes des terroristes. waaw des terroristes les rek. voilà tous les mots maintenant. quand ils nous parlent de ce bloc. des terroristes des infiltrés des quoi il faut nga mener enquête. ñun enquête la ñu soxla. génnee ñu jappal ñu ñooñu. Hmm. <laughs> Eh, Sëñ Fallou xam nga lan mo jaaxal sénégalais depuis 2021 on nous parle des forces occultes des forces spéciales. mais mënuñu mësuñu jàpp kenn ne lañu mu ngi nii foog nga jàpp da ngay jàpp jàppal kii mu ngi nii kii ci ñoom la bokk <laughs> mais jàppal lu mel ni Sénégal dayo bu mu am état du Sénégal ak force bu mu am gendarmerie section de recherche macha allah sûreté urbaine ak dayo yi ñuy am ci enquête ku ñu mën ku ñu bëgg a jàpp dinañ ko jàpp mais pourquoi ba léegi ñu am ay corps d'élite yooyu. yoo xamante ñun dañ koy ndamoo mais ba léegi mënuñu laa jàpp ces infiltrés là mënuñu laa jàpp ces forces spéciales là mënuñu laa jàpp c'est terroristes là ba léegi te ñu ngi continuer di rey chaque manifestation bu amee dañuy rey <laughs> c'est là où il y a le problème sénégalais yi et seen inquiétude dur. manifestation de inquiétude sénégalais yi loolu la force spéciale yi ñuy wax. nañuy jàpp nañ nañ jàpp ñooñu nañu jàpp ñooñu ba pare teg leen ci taabal bi si il faut les ñu filmer leen pour sénégalais xam ni ñii ñooy force spéciale yi ñu ñuy wax mais du jàpp ay manifestants yoo xam te ci askan Sénégal lañu bokk nga nga ji ñu leen ay terroristes ay terroristes yoo xam te ne ay xale yu ndaw yoo xam te yu 14 ans lañu am yu 15 ans lañu am yoo xam te ne bàyyee ko ci famille nga jàppale nga ne voilà ñii ngay terroristes yi <laughs> wala nga jàpp benn parti singeli ko lu mel ni Pastef nga ne képp ku jógee ci Pastef terroriste la Moustapha Diakhaté wax na ko fi wala Moustapha Diakhaté moo ko fi wax ñëpp ñu faree ci Pastef Pastef yëpp ay terroriste la ñu foog ñu rey leen ñoom ñëpp ba ñu jeex loolu mooy extermination d'une race wala extermination d'un parti bul xam ci parti boobu ñaata famille ñoo fa nekk <laughs> foofu la ñuy xaaree magistrat c'est-à-dire que euh, procureur de la république quand il parle d'extermination des familles nous sommes ci parti Pastef nous sommes... Moustapha ñu sommes euh, euh, Cheikh nous Nous parce que langage terroriste c'est du terrorisme. c'est un langage terroriste. un génocide. verbal. mais le pour nous, c'est clair c'est clair alors donc alors chers téléspectateurs on poursuit euh, donc exactement si. Euh,